soccu rek. waaw bëgg a jàmm rek. Ah? waaw jàmm waaw. tey nan nga ñëwee. waaw tey ñëw ak confiance bu bari rek. waaw bu bari sax. ñu gis keroog signature bi fii nga sawar lool dóor fi fecc fi bàkk yeeg yooyu lan la. waaw ñun ay sëtu mbër lan moo tax buñ ko defee war nan buñ ko defal war nan te buñ bëree war nan buñ bëreewul war nan. mais sa waay nee na tey du la may dara. bëggu moom may ma cent franc bëggu moom may ma dara. ña ne boo xeexee mu duma la boo bëree mu daan. arbitre moo ko fi bàyyi bu neexee yàlla suñu borom. ah Doudou ko bu neexee yàlla suñu borom. Ah. maay def lépp si kattanu borom bi incha allah. li gi am yëpp yàqu. Gouy Gui tey nan nga ñëwee. sant yàlla rek. nañu yàlla borom defoon jàmm. yaa ngi yàlla sutura bi yaa yonent bi. mais sa waay na tey yéen ñaar seen diggante du yomb. non mënul yomb moom ñu ne en succu loo du yomb waaw. tey tey lan nga indi. Gouy Gui day xeex wala day si tey. lépp xaj na ci lépp xaj waaw mais sa waay ne boo xeexee mu duma la boo bëree mu daan la. ci kanam yaa ko dul. ah waaw ci kanam rawli ba kon. incha allah rabi. ki suñu jabar la. lu leer la booy bi parcelle parcelle parcelle. boy loolu yomb na de. suñu la ñu neex lañ koy daane. barki Mame Serap Fall ñooy xool lu ñu neex ñu ko ko. fan ngeen ko teg. voilà lépp lañ ci côté bépp lañ ko pare ñooy xool lu ñu neex ñu daane ko ko te boobaa bu lamb ji jeexee ñëwaatal fi fekk ñu fi. amul benn problème. maa ngi ñëwaat. waa gis nga noonu alliance mu ngi noonu toog ci ci mukaayam ndeysaan def ay débat débam mu ngi noonu di ñaan tey digganteem ak caatu fora yaakaar naa ni du yomb ndax xam naa ne amateur yëpp combat bi bokk na ci li leen fi indi tey diggante alliance Baldé la ak Thiatou Fora gis ngeen noonu alliance ñu ngi koy may loxo muy jóg hey champion bi alliance bëgg na la. ñu lay siyaare. alliance tey nan nga ñëwee. waaw comme nu ma daan ñëwee rek. sa digganteeg Thiatou Fora tey Thiat nee na du yomb. waaw moom am na duraane du yomb parce que am na yaakaar parce que booy bëre ko feebar da ngay am yaakaar xam nga senegal dafa am kumba am nday ak kumba amul nday ñun suñu écurie amul kenn kuy liggéey ñoom suñu giri seen igri gëm naa ne am na ku liggéey CNG parce que mënoo génn hôpital ñëw stade di bëre mënoo tëdd 29 jours ñu ne la da ngay bëre par force. mais dama dégg da dugal ay médical gars yi bañ loolu nu mu demee noonu. dama dugal médical ñuy rejeté ko parce que ah ñoom am nañ doole CNG man awma doole CNG parce que igri bu ndaw laa nekk ñu koy wax waxi naan amul kenn koo xam ne yàlla def na am na doole CNG comme ñoom dañoo am doole CNG yàlla moo leen ëpp xool. mais loolu est-ce que wóor na feebar di bëre. xanaa xamoo yàlla rek moo fi ne parce que ñoom dañoo buggoon aj alliance deux ans wala trois ans alliance du toog ci làmb du sommet parce que saison bi bii mooy sama quatrième combat mbëri ndaw yi mën nga leen compter amul booy bi ciy bëree quatre combats wala trois combats saison kon damay sant yàlla nuñ ma ko xañee lañ doon wër mais man damay sant yàlla bu baax a baax dinaa bëre dina wane jom dinaa wane fula lu ma yàlla may ma gërëmee ko. mais loolu noonu lan la nii nii. waaw essayé ko déposé kii bi tam médical bi. dugal naa ñaari médical njëkk naa dugal dem ci médecin ñëw fii ñu ne ma demal médecin CNG ma dem mu xool médical bi ne ma clinique moo ko bind ñu enterré ma Dominique depuis samedi samedi ba léegi ñaara fan la samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi ma indiwaat médical ñu téye médical ba mu neex leen ñu ne ma da ngay bëre. loolu loolu waa CNG dund ak yow lan nga jàpp ne lool lan la. ku ma am nday ak ku amul ndey. ak ku ma amul ndey waaw moom la non moom la sax amul moom laa ko jàppee loolu moo am. jaajëf alliance waaw sëñ Fallou yàlla na yàlla doolu sutura defal leen tawféex xam si li ngeen nekk yàlla taxaw leen waaw sëñ Fallou jaajëf ñu ak famu rek sant yàlla bu baax a baax ki ngay bëreel xam nga ko non solo mu xam na wax dëgg fa yàlla moom solo nga xam te ngeen war a ñaar da nga ko war a xam solo mu nga xam ah solo nga xam tey lan nga indi tey ànd naa confiance ànd fulla ànd fayda ànd entraînement saa mbokk gunge ma tamit waaw ngeen di bëre tey muy taw waaw tey bis bi bi bis bi ak nim rëyee taw bi mbaa deful ci yéen dara non deful ci dara neen ah ndox ndox xewal la ñoo leen sàkk ndox bi gañ waaw na xelu féris ñun rek ñu ay doomu béykat lañ mais sa waay neen day xeex tey de ah sa du du xeex du bëre day daaw dem ñibbi ah? waaw ah? ah yombal nga ko de ah, lu métti gën a gën a li li ba kanam raw bi sey bët mbaru mbaru amateur waas loo indi tey waas waaw ginnaaw bu ñu yàlla julli na bi di sant suñu ñetti waajur di sant samay maam di sant samay yaay di sant samay papa di bëgg waa adduna di bëgg fu ma bàyyee ko muy Dakar Plateau rawatina gox bu ma dëkk muy Nianthio Kher sama waa dëkk waa Thiawane Kunta waa Ndiassane maa ngi sant ñëpp. waa suñu toor tey lan la indi. waaw lu ma mooy comme dab rek man xale laa dama ne ci yoon jàpp bëre daan ñibbi. yombal nga ko de. ay ponkal laay daan. mais sa waay dafa seen diggante ñaar xëy du yomb bañ ci ba bàyyi fi bakkanam. waaw mais moom loolu yàgg na ko wax te man dama def 4 combats 4 victoires dama koy sant yàlla te dama ñëw war a confirmer kon waruma caaxaan journée bi ay xale kese ci ne kon damay ñëw dëggal sama bopp wane ne lu ma mën ak nu ma mënee. jaajëf Fass. waat ñëwul pour caaxaan ah. damaa war a lekk xaalisu làmb. a lekk xaalisu làmb te tey tey nga war a confirmer gars yi da nga war lekk xaalisu làmb. barki Saar Fara bu bëggee man dañuy xeex ba yëg ci asamaan si ah. moo ko teree neex. li ci kanam rawuli ba duwaas. benn problème <laughs> ay mbir. Ah. mbir la. doy na na. takk na ko de. waaw waa suñu tooroo ngi noonu ndeysaan. yàlla xam nga waaw gis nga yaa ma gën a xam. Ah. ñëwul comme ni ma la ñëwee rek dafa yokk quoi. waaw parce que sa waay gaan tey dama ko bëgg a wan ne ko lamb xale moo koy def. lamb xale moo koy def waaw la da ngay may temps wala doo may mi. non amul may temps man ma bari su ma génnee pokaari gaan yaa ma gën a xam. su bëree ma ma dóor mu daanu su xeexee ma dóor ko mu daanu su bëree ma daanu soo defee ko sa waay nee na mag lamb xale moo ko amul doole entre si combat bi. te si digg géew bi dina leen incha allah. maa ngi bëgg si ndax man amul lu ma waa di gërëm Saloum Saloum yëpp xam nga képp kii nekk Saloum jàppale si combat maa leen remercier baax a baax. caatoo nekk mais Thiatou Fala tey ay tubaab laa gis mu àndal de. tubaab ñaari ngeew kay laa gis mu àndal tey. ñibbi na ci de. ah. tey Thiat Thiat dama gis ñaari ngeew. tubaab li ñu ko jàngal xeex lu ñu ko doon jàngal wala. Thiatou kon tey gis naa mu tubaab wala Abou Ndiassé indi tubaab <laughs> eh waay lamb ah, ah aboy ni tubaab bi xam naa aboy def yooyu caata ngi nii mais bi kan ma mais bi kan ma koy laal abu waaw caat caat tey noo ñëwee dara di ñaan yàlla may ma ndam rek ni ma doon ñëwee rek laa ñëwee imaginaire tubaab dara la di caar lan la xeex nga jàngi woon. <laughs> Eh, tubaab abu ñaase la waaw. <laughs> sa diggante Alliance Baldé tey lan la. dara di ñaan yàlla may ñu rek billaahi. ma man moom mënu maa may minute. mais si géew bi moom incha allah lu mu laaj rek incha allah waaw. waaw maam Thierno borom Seras mu ngi nii tey moo indi Saba ñu gis tey bis bi tey nan ngeen ñëwee. tey ñëw rek daan ñibbi loolu rek leen indi tey. Saba nag day mbër mu yaru mu baax mu neexaandal mu jox seeraas gépp cër taw bi la sax mais kon dana gën a fees lii gars yi bëgg nañoo ñëw mais taw bi am ak ndox mu bari mais su fekkoon ne tawul tey nga gis fi loo xamee nii mooy loolu ñëpp am yéene ci moom ndax dafa baax dafa yaru wax dëgg yàlla. mais tey ki ma am Ardo ki nga xam ñëpp nee nañ combat am du yomb day xeex day bëre tey nan ngeen ñëwee tey boo ko doon conseillé tey lan nga koy bëreloo. non Ardo moom tey bu bu may conseillé fa Saba li ma koy wax mooy jàpp tànk rek ndax ndax mbëru tànk la. mais nga yaakaar ni Saba moo ëpp doole Ardo wala lan. moo ëpp doole Ardo. moo ko doole. nga teg ko fan. waaw ah, non ci entraînement bi laa ko teg. ñoom ñu ngi doon entraîné. waaw ñu ngi doon entraîné mais xam nag. way hmm. kon tey bi mu toll nii daal jàpp naa ni ku mu tase def lay daan. Ah. loolu lañ ko indee. kon ci kanam li ci kanam rawali bët. li ci ok sama gars yi merci kontaan naa ci yéen. ndam incha allah. Ah? waaw mën nañu xaar xeex wala bëre. waaw lépp rek lu samay course wax rek. waaw. lu mi si biir waaw. liggéey nañ lépp. ñaar seconde nga koy may. non baa ñu koos ko. Ah. oui.